madar xabiro hewa kabiro fala yakuro minal madar xabiro mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mohamed Bachir mii nga xam ni moom la Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi sunu borom yàggal te wéral ko ak njaboot Cheikhul Xadim gi yépp moom la wax ni moom mooy ay gëtam moom mooy ay loxoom moom mooy ay tànkam moo yor baatam ni nañ ko ko jàppal bu baax it kon ñu ngi ñaan sunu borom yàggal ko te wéral ko sëriñ bi nag. wax ko ni que lii nga xam ni dafa xew te lal laal jullit yëpp jullit bu nekk rek ci biir réew mi rawaate ne biir senegal xam nga ni fan yi sa xol neexul ndax lee nga xam ni moom moo am ca Dakar ba mbokk yu bare faatu fa ba tey jii rek lim baa ngay yokku ba njiitu réew mi sax wax nañ ni décrété na ñetti fanu deuil national looloo waral ni mu ko baaxoo defee ci yu mel nii bu amee Cheikh Mamadou Bachir jël kàddu ci turam jël ko ci turu yoonu murid yëpp ak ñi mu bokkal lislaam gi massawu mbokk yooyu ak jaale jullit yëpp loolu moo waral kàddu yi kon ñu teewlu ko bu baax a baax bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiyallahu taala an cheikhina ahmad alxadim ridan la chuqta baadahu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi ci réew mi yëpp ñu ngi yëkkati suñu kàddu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di bis bi ci bis yi di bisu àjjuma ci ndigalul al xalifatul am li tariqatil muridiya di ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ko wér bannaal yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoonu murit suñ borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko ci wér mu jox ñu ndigal ñu yëkkate ay kàddu ci turam ndax moom dafa day fay jëmmi Sëriñ Tuubaa donn ko te sëriñ Tuubaa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaalixil baraaya aaya baana li kulli man lahu maaquulu anna wasilati huwa rasulu sëriñ Tuubaa nag dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax itam ñëpp xam nañ ne lépp lu mas di ñaan lu ne jullit yëpp la koy boole mosu cee xàjjale kenn moo tax boo delloo ci ay mbindam am na fa fu mu li may ñaanal jullit yi nga xam ne dañoo aju ci man moom laa ñaanal jullit yi nga xam ne ajuwuñ ci man yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami alwara la ci teg kon fu mu ñaanal rek jullit yëpp la ko booree wajaal quluubana ala tawaadudi bila tanaazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri xataa nasiira muslimina xaasiin wa muminin muxlisina saalihin fu mu mas di ñaan rek jullit yëpp àndandoo ndekk benn lay ñaan ba boo demee ca biir xasida ga niñ ko baaxoo xamee ñëpp xam nañ ne dafa mujj nekk awkaa julli yi digganteem seen borom fa innahum wa in asawka yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdaanahum laa taqdiru ala balaika li doon fi ñesam kon foofu mu nekk fa taxawaayu jullit rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ko donn di défendre jullit yëpp di ko xamal ne ko doonte ñi ngi lay mooy itam na xam ne bokkaale wuñ la mukk ndax xam ne yaa leen bind dooy dig doomu aadama nag moo leen jàpp ci biir loolu nag xew-xew yi daa am dégg ngeen ko ci Mauritanie ba mu fa amee am naar gént ñuy wax ko ne ko ba demee ci sëriñ bi taalif na xasida gu ñuy wax wakkaana xàqan hmm. buñ ko jàngee réew mépp dana am jàmm kon loolu sëñ bi nga koy fàttaliwaat naar bi bi mu dikkee ci sëriñ bi wax ko ko sëriñ bi dafa génne ci biir yëkkati xasida gi jox ko ko mooy mbind mu tooy xepp kon loolu lu yàgg la xam ngeen ne waa arabi saoudia bi nga xamee ne song nañ leen di waa madina su mën a war a leetar ba ci taarix ñëpp gis nañ ko mi ngi fi bañ sàkku seen ndimbal ci sëriñ bi sëriñ bi da leen a ñaanal suñ borom tàggale leen ak moom am na genn xasida gu ñu wax yaa rabbi bil mustafa al muxtaari min mudari shafii ummatihi fi lbadi walxadari alayhi salli bi taslim bi la adadin fi l ali wa sahbi uasimna min addarari xut ummata Moustapha an kulli mafsadatin xamaa yujur lahum siwal ibadati wa asimhu min asarari wasrif li xeyrihim acheytaana fi abadin wal takfihim kulla ma yashtu min basari wal tasif iddaa an marda aljamici bihi wasif lahum muwajibat alamni walbishari wajal quluba zawi lislami fi amalin wal takfihim kulla ma yufdi ila algarari wasalli daban bi taslimin alayhi biman lahum tama wal tajud bi shaf wa durari loolu lépp julli yi la ko jagleel kon nag mbooleem njabootam gi fi ma sa nekk ñëpp seen yitte jëpp mooy lu dajale julli di ak lu nekke benn jullit di moo tax barki dem maa ngi koy wax Serigne Touba buñ ko laajee ñan ñooy yoonu murit ak fu mu juddoo ak ñan ñooy murit yi da leen di wax ne fépp fu lislaam àgg foofu ñoo foofu yoonu murit àgg fa képp koo xam ne ab jullit nga it ab murit ga kon Sëriñ Tuubaa xàttalu toon mbiram boo delloo ci mbindam itam lépp fu muy waxee bëgg jullit yi ma nekk benn loolu la cee wax loolu laa waral itam njabootam gi ko fuutu di ay doomam ba ci ay sëtam xam gi ñu xam ne sëñ bi yitteem jëpp moo doon lislaam nekk benn ñoom itam waxtu ne guddeeg bëccëg ci li ñu xëy dafa daa wax ne ñaari bayit yi innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum mu ne loolu ak tey la mu ne inna sheytaan lakum aduwwun mu ne ak ndax la mu ne waaye tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun inna sheytaan lakum aduwwun mënu ko yàq kon jullit yi wenn xeet lañ woo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ab jullit ni war a mel dëgg-dëgg ak mbokkum jullitam dafa dafa war a mel ni ab tabax ak jënn jëmm tabax boo xam ne biir yi nii ràbbaloo benn bu ci ne day xam ne sa moroom tax nga mën faa ne dafa war a mel ne jëmm joo xam ne itam cër yi ni lëkkaloo tax mu doon jëmm cër yi lu ci métti rek ba cees dana ko jëg sostaka minhu bu ci bu ci benn cër jàmbatee rek aw mettit chairul eh, jasadi rek doo ko yëg kon loolu moo tax ñu xam ne lépp lu dal ci jullit yi ak Cheikh Sidi Mokhtar day xam ne dal na ci kawam dal na ci njabootu Serigne Touba ndax moom déclaration yi muy def bariwut waaye ba mu njëkk def nga xam mooy lu ko ci gën a ñor mooy ba mu toogee mooy ne bu ma sañoon suñ boroom dimbale ma ba wóote yi am ci biir julli ci biir senegal suñ boroom tàggale joo moom loola kon mooy lëkk ko gën a itteel ci ak xilaafam ñi ko seqalit di ay njabooti lislaamam itam di ay bokki kilifa diineem wuyu ko ci wuyeen wu rafet woo xam ne moom ci boppam dégg ngeen ren bi ñu wootee màggal gi mu ne seenuk cant amu ndax man damaa ñaan sàkk ko rek waaye bu ma ci amee ndam kon yéen a tax kon loola itam moo waral tey ji itam bi nga xamee ne am na lu dal ci suñu bokk julli yi nga xam ne dañoo bàyyi ko woon seeni kër dem Madina Gunaas ngir dem fa jaamu yàlla wéetali seen borom ba suñ borom dogal natt bu rëy di balaa am fa sëriñ bi di ko jaale ki nga xam ne mooy xalif bi nga xam ne mooy jiite njaboot gi ak njaboot gi di ko jaale lislaam bépp yëpp itam ndax fitna la joo xam ne ci ñëpp la dal ci seen kaw ndax lu dal ci seen ci ñoom rek dal na ci ñëpp kon sëriñ bi di ñaan suñ borom jamono ko fii te ña nga xam ne demoon nañ ñi itam ñu rafet njortu ci seen biir ndax wa man yaxruj min baytihi muhaajira ilallaahi wa rasulihi summa yudrikuhu mawtu faqad a juróom moo tax xam ngeen ko ci histoire sax am na ci xare yoo xam ne rasulullah bi muy bëgg a dem te xam ne ñu bari danañ fa des xamaloon ne leen ne leen ku fi ku fa bàyyi ko ku ne àjjana nga jëm directement. kon nañ xam ne lépp rek ci nattu yi la ndax suñ boroom dafa wax ci alxuraan ne alif laam ahasiba nnaas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna allaziina min qablihim fa la ya'lamanna allaahu allaziina sadaqu wa la ya'lamanna kaasibiin nee na du ngeen di wax ne gëm naa rek lu dul dama leen nattu ba xam ndax li ngeen di wax dëgg la am déet looloo waral ci biir nattu yooyu léeg mu diis ba. jullit bu bu ngëmam dëgërul dëgg dëgg sax bu yàggee xolam mën naa rekki ko te fekk na xufati jannatu bil makaarihi wa xufati naaru bi shahwaat ajjana dañ koo muure ak yu metti yoo xam ne bala ci àgg faw nga xuus ko ba àgg ca sawara nag dañ koo muure lépp ak yoo xam ne ko bëgg yu neex ci bakkan kon yii yëpp itam nañ xam ne ci loolu rek la tabbi kon ñi ngi ñaanal ñi fi bàyyi ko te xam ne képp koo xam ne faatu nga ci loolu da xam ne shahid nga da jàpp ne ku dee ci xare ab jullit nag yaakaar naa wutul ci adduna lépp àjjana kon nag yàlla nañ ca dajee tawféex yàlla na suñ borom defal leen ci ndimbal te ay wiit yem fi musiba yu yem fi tañ xam ne rek am xasibtumu an tadru an tadxul jannata wala yaatikum masalu la si ne xalaw min qablikum machathumul bachaa wa darraaw wa zulzilu xataa yaqulu rasul wala si naamuhu mahu matee nasrullah ala ina nasrallahi xaribun loolu mooy ñi nga xam ne gëmoon nañ demoon nañ bay bëgg a toqi sax bay mujj di wax yonente bi naan ko aw ana ndimbalu yàlla li ñu doon del kañ lay ñëw yonente bi ne leen mi ngi ñëw ala ina nasrallahi xaribun kon nag ñu ngi koy metti li di ko diislu di xam ne nattu la te suñ borom kat moo daali woon ci alxuraan ne wala nabluwannakum bi cheyin min alxawf waljuuci wa naqsin min al wal anfusi wa thamarat wa bashir sabirin danaa leen nattu nattu yee nag bokk na ca lu mel ni xawf ñëpp maase tiit boo seetlee jamono ji loolu bari na ci léeg-léeg ñëpp di tiit yaakaar fi ne day bëgg am wal juuc wala ak ñàkk gu métt ba nit ñi lekk lépp ci nattu yi la ak koom-koom gu manqué ni ñi yoratuñ dara wa samaraat ak lu li ñuy wax jafaaf sécheresse hmm. ak nawet du gànt yëpp ci nattu yi la bokk hmm. ne waaye boobaa nag wa bashiri sabirin hmm. na nga bégal ñi nga xam ne bu nattu bi dalooy seen kaw dañuy wax ne allazina isa asabatu isa asabatu musibat xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmatu ulaika hum muhtadun ndax kam min nicmatin fii tey niqma bari waa luy nuru musiba akum nattu te xéewal la lay jur hmm. ndax doomu aadama wuute gi mu wuuteeg lim bind da cee ki ko bind da cee feeñ ndax yàlla suñ borom saa su la bëggee bëgg laa dimbale faaw dalee tegum nattu doomu aadama rek saa su la bëggee nof laa lay wutal hmm. waaye kon nag ñi ñaan képp koo xam ne desoon nga ca yàlla suñ borom mottali sa yéene te tàbbal la ci yaay yaayatuha nafsul mutmainna turjii ila rabbiki radiyatan mardiya fa doxali fi ibadi wa doxali janati ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan ñëpp daal ànd ceeg muñ te delloo lépp ci suñ borom te xam ne ma faala al jalil fa huwa al lépp loo xam ne suñ borom dogal na ko rek mooy la gën bu bu ci sa bakkan itam na nga xam ne loolu mooy la gën Sëriñ Tuubaa am na ku mu commencé wax ci njaboot gi koo xam ne day def njab ku mu am rek ndeysaan mu dellu mu ñëw ci sëñ bi ka mujj am amoon ci yaakaar loolu ne mbàkke de bu la neexoon kii du dem ndax xam naa fi nga àgg sa digg sa borom sëñ bi ne ko waaye looloo neex suñu borom kon dogalu suñu borom dañ koy jiite ci lépp te xam ne itam ña fa dem ñëpp itam maa ngi koy nettali barki démb Cernu Madani Tall fekk men mbokkum taalibe mu ma doon gana ji mu ñëwoon ca mm. ma di ko wax ne ko dégg naa ci Serigne Souhaïbou mu nettali fekk doon nettali digganteem ak gaa yu baax yi ndax gaa yu baax yi li ñuy wax alamul arwaax dañuy gisante bi mu nekkee ci géej gi muy nettali diggam ak Cheikh Omar Fouti wax ca lu yéeme ba wax ne moom da nituk yàlla dëgg la sëriñ bi teg ca ne moo tax bëgguma ku bokk ci yoonu murit itam bu leen kenn wax dara ndax ñëpp sama njaboot lañ ndax nam demee seeni kilifa tax muy xis sa baatin boo xam ne mëneesu ko nettali ci rajo waaye kon li war ñëpp mooy rafetal mm-hmm. ndax loolu moo mën a indi jàmm ci àdduna mën a indi jàmm ci lislaam te xam ne it nit lam gëm suñ borom ko ko tànnal ndax kullu mawludin yuuladu ala fatra ñu xam ne itam ku ne la nga gëm suñ borom ko tànnal ba nga ne ca ñu bàyyi la ci sa xalaat ak sa coobare mm-hmm. rafetal ko mm-hmm. rafetal gi mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan koy woo sax ci lu baax dee ko ci wooyote wootewu nu gën a rafet te booy def jidaal itam wa jaadilhum billati hiya ahsan kon ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di siyaarewaat ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk ndax ñëpp ñàkk sax waaye seenu njaboot la ñoom itam ñu ngi leen koy jaaliwaat di ko teg seen loxo jàll ko ci mboolem njaboot gépp tëje ko nag ci teg ko ci loxol ki nga xam ne yàlla dogal na moo nekk ci bopp alxalifatul am li tarixati ya di sëriñ Abdul Aziz Sy mi nga xam ne suñ bam tey moom la teg yan bi ci loxoom ñu teg njaan mi ci loxo mu jàll ko ci njaboot gépp ndax boo xasee teg ci loxoom rek képp ku bokk ci tarixatu tijaaniya tàbbi na ci biir di ko moo moo itam ñu di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax la jëkk muy ne fii itam lépp loo xam ne war na ko ci rafetal mos cee taay mos cee dàcc ba suñ boon teg liggéey bi ci loxoom kon nag rafet nañ jot cee nam daa rafetal day gën a rafetaat salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa kon ñu ñaanal Cheikh Mouhamed Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mucc ak mboolem njaboot Cheikhul Khadim mu yàgg jëfe ndégalu Cheikh Seydil Muxtaar bërki démb rek la jëfewaat ndigalam. dem Masaalikul Jinaan xool liggéey ba fa mu toll taalibe yëpp bégaat taalibe yëpp soññuwaat ngir war a taxawaat ci liggéey bi yàlla na ko sëriñ bi ñëw ubbi si balaa yàgg incha allah mu fekke ba tàmbaliwaatal ko yeneen liggéey kon lii la jëmale woon ci tiis bi nga xam ne am na ci réew mi jëmale ko suñu mbokk jullit yëpp kon ñu tàllal ci biir ñaan gi itam fas si rek lu mel ni gëj fi ndax nattu mënul ñàkk ci jullit waaye sëñ bi ñaanal nu ci barke maamam lu mel nii na gëj ci réew mi gëj ci yëpp wasalaamaaleykum wa wajad